nee na yitte di bëgg cheikhul khadim nee mbacke mi ngi ñaan yalla suñu jootaay bi yalla nako yalla agale te yitte yalla na yàgg am mbacke te nga yag ko fekke nee mu ñew ci magal gi ci turu ministère am ak turu gouvernement bi muy ministère des affaires étrangères nee mbacke ñu ñew tay di la siaré di mas a féddali kóllëre gi mas am ci senegal yëpp ak mboolem gouvernement boo xam ne mas na fee jaar ñoo xam ni jaar nañ ci yow ba jaar ci tuuba ba agsi ci ki nga xam ne moo fi nekkal ni Seexul Xaddim nee na ñoom Mbàkke li leen war ci màggal gi mooy fépp foo xam ne ab ambassadeur nga fa wala fépp foo xam ne ab toogaay am na fa ñi nga xam ni ñooy ambassadeurs yi jóge bitim réew teewal fii seeni réew fii ci Sénégal nee na ñoom ñëpp moom soxna may mun a ministre des affaires étrangères dana leen jottali kàddoom moom moom mii di soxna Yaasin nee na dana leen jottali kàddoom yëgal leen ngir ñoom ñëpp ñu mën a teewee si màggal gi nee na am na délégation boo xam ne demoon na Gabon nee na te ñooñu fii lañ bàyyi ko woon Mbàkke fii yéen nee na waaye ñoom bin bin demee Gabon liggéey nañ liggéey bu am solo waaye ñoom it dalal nañ leen la leen warantu ñoom lépp Mbàkke def nañ ko fépp foo xam ne am na ay daayira fi ci ci mboolem addina bi nee na ñun benn taxawaay rek lañu am mooy mboolem daayira yooyu fépp fu nu ne luy seen aajo ak seeni taxawaay ñun danañ def suñu kémt lay kàttan nee na tey dafa ñëwoon rek xam ni ni màggal gi moom ñëpp a ci war a ñëw waaye dafa waroon na dem tukki waaye mu ne na ñëw tey ji Mbàkke siyaare jërëjëf Mbàkke jërëjëf mu ne jërëjëf mu ne jërëjëf soxna Yaasin nee na mi ngi sant bu baax mu ne gis nañ yitte ji bu baax mu ne dégg na ni nga ko waxee ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm bu baax mu ne fa tabaarakallaahu am nañ yaakaar bu baax mu ne suñu xel dal na mu ne suñu yaakaar yi dolliku na ñu ne ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal bu baax mu ne liggéey bu rëy bu ñu leen dénk suñu borom woyefal leen ko defal leen ci barke defal leen ci ndam mu ne ñu ngi leen koy ñaanal bu baax mu ne suñu xel dal na bu baax mu ne am nañu yaakaar ci yéen lool mu ne suñu njort it gën naa rafet mu ne kon li ci des mooy sant la ak ñaanal la mu ne gis nañ jëf ju rafet ji mooy taxawaay bi rek <laughs> ñu ngi bu baax. gis nañ ko bu baax mu ne gis nañ ko bu baax. mu ne suñ xool sedd na ci bu baax. jërëjëf ñoo ne jërëjëf Fall jërëjëf jërëjëf bisimilah. bisimilah ñu tàllal ba noppi Nous sommes venus ici aujourd'hui à Touba pour euh, rendre hommage euh, au Khalif et à l'occasion donc de, de, la célébration du Magal de Touba. Ah, comme vous le savez, le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères a un important rôle dans le succès du Magal, de par euh, la portée internationale de cet événement. Parce que le Magal n'est pas seulement un événement sénégalais, c'est un événement mondial qui regroupe des, non seulement des talibés, mais des sommités internationales à tout niveau qui viennent ici célébrer euh, euh, le grand Touba, Hadim Sol. Donc nous sommes venus ici pour d'abord euh, rendre hommage à Serigne Touba, Cheikh Hadim mais aussi à rendre hommage au Khalif. Et puis aussi dire que nous avons soutenu toutes les délégations qui sont allées à l'étranger, que ce soit au Gabon, ou à l'étranger, pour, pour la préparation du Magal. Et aussi que toutes les représentations diplomatiques au Sénégal, qui chaque année viennent ici participer au Magal pour rendre hommage au Khalif et à toute la communauté mouride nous sommes aussi venus ici en tant que Sénégalais, parce que ça c'est un événement unique au Sénégal qui regroupe euh, beaucoup de, nos compatriotes, un événement religieux mais aussi culturel et social. Et donc il est de notre euh, responsabilité euh, pour les Sénégalais de l'extérieur, euh, qui, constitue une très forte communauté, qui vient de tous bords pour venir célébrer le Magal il était important aussi qu'on soit ici pour euh, euh, magnifier le travail que nous sommes en train de faire et de dire que nous sommes à leur côté et que nous allons continuer les efforts que nous avons commencés avec le gouvernement pour soutenir toute la diaspora sénégalaise à l'étranger. C'est importante pour le Sénégal, je pense que euh, le Sénégal aujourd'hui joue un rôle important parce que lorsqu'on parle de souveraineté, lorsqu'on parle de développement, lorsqu'on parle de développement humain, les questions de euh, développement durable sont au centre de ces questions et ce sont des questions qui vont être aussi discutées aux, Nations Unies durant l'Assemblée générale. Et le Sénégal va jouer un très grand rôle de leadership qu'il joue depuis longtemps, mais qui sera aussi renforcé et élevé. donc euh, ma wax ko rek ci wolof di wax ni dañ fi di ziar ziar euh, général des Mourides ci turu sëñ Touba ci bëss bu mag bi di en tant que ministre des affaires étrangères ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères De département ministériel dafa am solo ci li ndax euh, xam ngeen Magal du Sénégal rek euh, euh, la sénégalais diaspora mais ñi nga xam ay ci ay yu mag lañu ay di ko màggal te tamit représentation diplomatique yi ne Sénégal ñu ci bare màggal gi daf leen soxal lool ndax ku ne ci réew am événement bu rëy bu rëyee nii boo xam ne bi li muy dajal ci ay doomu aadama jóge na presque ñuy xaaj màgg kon représentant représentant diplomate yi ne Sénégal tamit dañ ciy ñëw kon ñun dañ ci am cër yu bare cëru sénégalais cëru musulman cëru taalibe pour ñëw fii màggal euh, sëriñ bi màggal euh, bés bi mais tamit si li nga xam ne mooy suñu toogaay ci gouvernement bi muy ministre de l' intégration africaine et des affaires étrangères intégration nag màggal gi daf koy def ndax ñi fiy ñëw ñi dafa bari ay nationalité bari ay africain yu koy fekkee di fi ñëw di fi liggéey di fi jaamu yàlla di fi euh, euh, topp seen seen mu doon tamit événement économique bu am solo kon suñu taxawaay fii dafa nekk lu am solo moo tax ñu ñëwoon tey di ziyaara sëriñ bi di màggal bis bi jërëjëf